suma idée tur joxam ñu war commencé fi mu waxee ni wala xalakum ma fi ardi jamian summa stawa ila sama fa sawahunna sabaa samawaat wa ngi xamal ba léegi ni tax ñu war koo jaamu waaye lépp mu ngi tënku ci ni war nañ koo jaam parce que mooy suñu borom déedéet sëg waaye nag ñu gën comme nag ñu ngi koy moy fokk daf ñuy leeralal loolu mooy kon ñu suñu xel nam waroon a jëfandikoo dañ ko waroon a jëfandikoo jëfandikoo wuñ ko mu ne huwa allazi yàlla moom mooy ki nga xam ni xalaqa lakum moo leen bindal maa fil ard li ci suuf jamian li ci suuf yëpp yàllaa ko fi def garab yeeg doj yéeg fépp suuf yeeg maanaam géej yeeg géej yeeg bàyyi may fi nekk yëpp yàlla moo leen ko defal yéen doomu aadama summa topp na mu jublu nag ila samay ci asamaan fa na mu séddale leen sama samawaat waxu moom yàlla alimun aji xam na bi kulli shay léegi bu taxawee ci aaya bi maanaam li ñuy dégg fi mooy yàlla dafa bind bind suuf si ba pare bind doogu bind asamaan walladi xalaqa lakum ko fi l ardi jamian defe naa la suuf yépp doog a jublu ci asamaan ci summa la wax nag waaye boo demee ci naaziaat antum ashaddu xalqan ami sama banaaha rafaa samkaha fa sawaha wa axra wa axraja duhaha wa larda antum ashaddu xalqan ami sama banaaha rafaa samkaha fa sawaha wa axtasha leylaha wa axraja duhaha ba pare ni wal arda ba'da dhalika daxaaha kon loolu ba tey mooy kon asamaan la la jëkk bind ko bind suuf rafaa samkaha fa sawaaha ma asamaan man maa ko yëkkati yemale ko wa axtasha laylaha indi guddi gi wa axraja duxaaha indi yoor yoore bi ba pare ni wal arda ba'da dalika daxaaha fii mu ni fii mu ni xalaqa lakum ma fi l ardi jamian summa stawa ila sama boo demee ci fussilat qul a innakum la takfuruna billadi xalaqa al arda fi yawmayni wa tajcaluna lahu andaada dalika rabbul alamin wa jacala fiha rawaasiya min fawqiha wa baaraka fiha wa qaddara fiha aqwaataha fi arbaati ayaamin sawaa lisaaili summa stawa ila sama maanaam mu mel na boo seet da naan aay dañoo duggante fii dafa bind naa li ci maa fi ardi jamian maa ma ngay leere ca qul a innakum la takfuruna billadi xalaqa larda fi yawmayni wa tajala lahu andaaran dalika rabbul alamin wa jaala fiha rawasiha rawasiha min fawqiha wa baaraka fiha wa qaddara fiha aqwaataha fi arbaati ayaamin sawaan li saaili nee na suuf manque bind ci ñeenti fan defar suuf si yeeg tàllal koog indi garab yeeg indi garab yi indi indi eh, géej géej yépp ma indi ko ci suuf lépp ma def ko ci ñeenti fan doog a jublu ci asamaan nag ca naasiat muy nag rafaa samkaha fa sawaaha wa axtasha laylaha wa axraja duxaaha wal arda baada dalika daxaaha moo tax alquran alquran koy firi léegi nag kon mu des maanaa lan mooy wal arda baada dalika daxaaha yàlla dafa bind suuf li wax bind na suuf defar yépp ba pare doog bind asamaan moom li leer mooy suuf lañ njëkk bind doog bind asamaan ba mu defaree suuf nag bind asamaan ba pare ba séddale ko daal di delluwaat ci suuf nag daal koy def ala shakli dixi maanaam daxaaxa dixee ci arab mooy formu nen maanaam suuf yàlla da koo defar teg nee defar asamaan si ba asamaan pare mu dellusiwaat ci suuf nag daal di koy formé waat forme nen forme bi ñu ko forme forme nen nag moom moo am gannaaw asamaan mais suuf lañ defar ba pare moo tax wal arda baada dalika daxaaha daxaaha la wax waxul xalaqaha daxaaha mooy jaalaha ala shakli dixya maanaam basataha ala shakli dixya dixya mooy forme nen maanaam suuf si bu fekkente ne wan wan nañ leen ko ci géographie forme nen lay yore kon li ñuy mën a dégg mooy bu ngeen gisee fii ngeen gis aaya ba ni wal ba ba'da zaalika dahaahaa bu leen jaaxle ni tanaaqud dafa am kon xalaqa lakum maa fil ardi jamii'an yàlla defaral na leen li ci suuf yépp summa stawaa ila samaa'i topp nag mu jubul dem ci asamaan nag fa sawaahunna mu seddale leen yamale leen sab'a samaawatin juróom-ñaari asamaan wa moom aji xam la bi kulli shay yàlla moo xam lépp bu ko neexoon muy muy benn asamaan képp waaye xam na li tax mu def ko juróom-ñaari asamaan ñun ñu nag suñu yoon nekkul ci gëstu li yàlla lu tax mu def ko juróom-ñaari asamaan wa is qaala rabbuka lil malaa'ika wa is nag foo ko fi gisee ci alquran da ngay def maf'ulun li fi'lin mahzuuf taqdiruhu udkur maanaam wa is is maf'ulun bihi mabniyun ala sukuni fi maxalli nasbi li ko nasab mooy wadkur wadkur fàttalikul wala tuddal is jamono ba nga xamee ni xaala rabbuka sa borom wax na lil malaaykati nii ni leen inni jaailun fil ardi xalifa dinaa defi dinaa defi ci suuf si ku ma fiy wuutu ku ma fiy wuutu boo demee ca ca xijri lay leere dafa ne inni xaaliqun basharan min salsalin min xamain masnun fa ida sawaytuhu wa nafaxtu fihi min ruuxi faqacu lahu saajidin wax nañu bi yàlla ne malaaka yi dinaa defari ku may wuutu ci suuf ak bi ñu ko defaree mat na ñaari junni at ñaari junni atu foofu nag kenn xamul nu mu toll parce que ñu bu ñu amee junni at mooy seen benn fan kon ba mu leen ko waxee ak bi mu bindee aadama soree na loolu kon way fàttalikul jamono ba nga xam xamee ni xaala wax na rabbuka sa borom lil malaaykati ñeel malaayka yi malaayka nag maanaam jamu malak malak moo fi nekkoon malak ñi ni malaayik malak malaayik waaye malaayik bi dañ ko cee dañ ko cee dolli li tanis waaye malak tim li fi nekkoon mooy malak malak malak mooy ki ñuy yónni yónni ma lakk moo fi nekkoon waaye loolu dafa jëfee tudd ñi daal di koy xal bu wax mal ak mal ak am na benn benn waykat bu wax ni walastu li insiyin walakin li mal akin tanazzala min jawi samaai yusawibu walastu li insiyin walakin li mal akin li mal akin mal ak boobu malaaka la ci jublu léegi biñ nee mal ak maanaam malak moo doon cosaan bi mais dafa am ci arab dafa bari façon giir am na ñoo xam si hamza day metti ci ñoom mënuñu wax ma malak yaa ni malak malak ci am na ñoo mënuñu ko wax ñu daal di jël masque ak malak masque ak yóbbu ko ci laam nga xasaf hamza daal ni malak malak malak bu buñ demee ba di ko jamu nag dañuy indaale dañuy indiwaat cosaan li dañuy indaale malak la jël malak ñu jam ko def ko malaik waaye lu ci mënti am daal mooy ñi nga xam ñoom la maanaam ay jëmm lañ yoo xam ni jëmmi leer la te it bu la neexee soppaliku lu leen neex bu la neexee def soppaliku nit bu la neexee soppaliku bàyyi ma bu la neexee soppaliku njanaaw lu leen neex mel yàlla leen bind te kenn kenn kenn xamul malaaka yi nu ñu toll malaaka moom wa maa yaalamu junuuda rabbika illaa huwa yàlla moom képp moo xam lu malaaka yi toll ndax bi ñu koy jéem a dañuy wax ni doomu aadama yi ak seen néewaay doomu aadama yi jinne yi ëpp nañ leen fukki yoon ñoom ñooy dixième junne yi boo boolee jinne ak doomu aadama li yàlla bi bind ñuy ra ñuy raam ci suuf ci nekk ci kaw seddu seddu nit ak jinne ëpp nañ leen ëpp nañ nit ak fukki yoon nga boole liy raam ci suuf ak nit ak jinne lii naaw ci jaww ji ëpp nañeen fukki yoon nga boole li naaw ci jaww ji ak nit ak jinne ak liy dox ci suuf li ci biir géej gi ëpp na fukki yoon nga boole li ci biir géej liy naaw ci jaww ji liy raam ci suuf ak nit ak li ci asamaan bu njëkk ci ay malaaka ëpp na ñeen fukki yoon boo boolee li nekk ci asamaan bu njëkk ci ay malaaka ak nit ak jinne ak li raam ci suuf ak li naaw li ci jaww ji li ci géej gi yépp li ci asamaanu ñaareel bi ëpp na fukki yoon nga boole yëpp passé yépp la ci asamaanu ñaareel ñetteel ñaareel bi ak bu njëkk bi ak ya passé woon yëpp la ci asamaanu ñetteel ëpp nañu fukki yoon naka noonu ba ba ngay dem aras ba ba ngay dem kursi yi yenn sallallahu alayhi wasallam nag boo boolee malaaka yi ci as boo boolee asamaani juróom-ñaar la ci nekk ci ay malaaka boo boolee li ci suuf ci ay ndundat nga boole asamaan yeeg la ci nekk yëpp boo ko sànnee ci kursi yi day mel na ku dem ba ci àll ba nga tekki sa jaaro sànni ca moo tax mu naan kursiyuhu as-samaawaati wal ard kursi yu mu ëpp asamaan juróom-ñaar ak suuf juróom-ñaar boo boolee yëpp sànni ko ci kursi yu day mel na ku dem ba ci àll mu tekki jaaram sànni ci nga boole malaaka ya nekk kursi yi ak yi nekk asamaani juróom-ñaar yi ak yi nekk asamaani juróom-ñaar yëpp ak li ñu teg ji nekk yëpp boo ko sànnee ca aras aras wax nañ ni ay ay pavillon fa nekk lu ma juróom benn téeméeri junni pavillon ña benn benn benn pavillon bu nekk nag moo ëpp asmaani moo ëpp la ca course yi yokk asmaani juróom-ñaari yëpp te te benn pavillon bu ci nekk yonent bi sallallahu alayhi wa nee na benn palaasu ndëgg boo fa gis rek ab malaaka nga fa sujjóot di jaamu yàlla wala mu taxaw di jaamu yàlla wala mu di jaamu yàlla léegi nag loolu mooy boo seetee li wër arache ci malaaka kenn xamul luñ toll kon yàlla jaamu gi ñu koy jaamu bu ko doon jëriñ dara kon danaan yéen waa Sénégal li ngeen li ma am li li ngeen am téye leen ko yéen waa Sénégal li ngeen am téye leen ko wala mun yéen doomu aadama li ngeen am téye leen ko xoolal rek bu fekkente ni bu fekkonte ni jaamu gi da koy jëriñ dara xoolal li mu am lépp moo tax mu ni fa in istakbaru fa lazina inda rabbika yusabbihuna lahu bil layli wan nahaari wa hum laa yasamun bu ngeen ma bañee jaamu am naa ñoo xam ne si ñu ngi ci man amul benn guddi duñ noppalu guddi du du bëccëg du lekk duñu naan duñu xiif duñu dem wanag duñu sonn te ñu ngi may jaamu kon yàlla malaaka yi kenn xam moo tax mu ne wa maa yaalamu junuuda rabbika illaa hu yàlla ni leen nag inni jaailun fil ardi xalifa dinaa defi dinaa defi ca kanam fi ak ñaari junni at ku may wuutu ci suuf li tax mu tudde ko kuutaay ndax xam nga yàlla dafa bind ni mooy wërsëgal yàlla mooy ñuy wërsëgal kon du jaageen moom mooy ñëw jël wërsëg indi di ñu jox doomu aadamaa ko fi wutal wutu aadamaa ko fi wutal ak ak njabootam wax na ni moom mooy rey kan moo koy wutu ci moo koy wutu ci rey ba ana kan la ñuy rey wax na ni mooy mooy donn suuf si moo koy dundal kan mooy ñëw di ko dundal di dundal suuf si moo tax mu ni indi jaa'ilu fil ardi xalifa inni jaa'ilin kuy defilaa fil ard ci suuf si xalifa kuutaay malaaka yi nag commencé nag daal di di fiir